mbokk yi seetaan ak déglu tey nag euh, dañu indi euh, benn produit bu am solo muy buy kell bisaab buy kel bisaab moom lañu indi ngir yombal ki seetaan ak déglu saa bu ko ittewoo mu xam nan lay def ba jëfandikoo xam ngeen ne buy kel bisaab lu ñu miin loolu la def ko ci ay butéel waaye ki nekk bitim réew day soxla ak keneen koo xam ne ci réew mi la nekk daf koy soxla denc ko ngir saa bu ko soxlaa rek mu comp ci def ci loole lañu xam moo tax ñu defaree ko nii ba nga xam ne kiy seetaan saa soxlaa puy kel bisaab pour wàllu fatiguement wàllu coono ngir yokk énergie puy kel bisaab ci cabinet Biorahma sachet ma di jar deux mille cinq fii lay amee jëlal numéro bu baax